su bëccëg gi jotee moom dal gu mat sëkkay am fii ci HLM askan wi dañuy doxi seen soxla fàtte jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy dund su guddi jotee ab diira ngi nii ñuy jànkonteel ak ñàkkub kaaraange gu doy waar. il fut temps amoon na ay moyens xam nañ daan def patrouille pas plus ci ginnaaw boulangerie bi rek agressé nañ fi la matin suñu doom bu ñuy jàngi ci jamono yi saisir nañ la police amoon na patrouille mais maintenant fi ñu nii dañu mel ni ku bàyyi seen loxo. nee nañ nag li waral lu ni mel mooy sinébar gu bari gi nga xam ne dafa dugg bu baax a baax si dëkk bi. ñii dañuy gens ñii dañuy pikiiru ñii dañ koy tox ñii dañ koy naan mu nekk ay doom te xam nga nit li gën a cher ci moom mooy xelam nit ki nag bu demee ba àndut ak xelam mooy àndut ak sagoom. Abdoulaye Gueye moo jiite coalition anti drogue fii si HLM ñoom sinébar dong la ñuy xeex ay at a ngi nii. yëfi dellu woon na gannaaw waaye jamono gi moom dafa jolliwaat. mais fi mu ne nii euh, drogue bi nga xamante ne moom la xale yi di gën a gën a yab nag mooy mooy cannabis cannabis mooy li ñuy wax yàmba moom parce que dafa accessible te te te njëg gi taxu ko seer noonu. lañ doon xeex yëpp ne nañ tàmbali nañ ko sax di ñàkk li ko waral nag moo di réewu Sénégal bi nga xam ne drogue bi fi dugg kenn xamul nu mu toll yëfi dafa tas ci gox yeex goxaan yi rawatina fii si commune bu HLM. xam nga aussi loo xamante ne saa yoo xëyee yaa ngi koy gis yaa ngi dëkk ak moom yaa ngi rombante ak moom loolu aussi dafay dem ba nga xamante ne léeg-léeg xale yi nga xamante ne léeg-léeg ne naa mos ba xam te ji li nga xamante ne moom la ñuy war a def rek mooy li ma waxoon léegi c'est que ah, ci biir jumaa yi ñu ciy waxtaanee. ci biir église yi ñuy waxtaane ko marché yi ñuy waxtaanee ko école yi surtout école yi. HLM tamit li ko sonal bokk na si marché bu yaatu bi nga xam ne dafa am njarata lool fu nekk la nit di jógee si Afrique saw jant di utali marché HLM ubbeeku gi mu ubbeeku moo tax lu nekk fii dugg.